Lol la yéenekaay bi daal di xëy euh, mu nek rek budget bo xamantene rek daal di nañ ko euh, ci euh, personnel waye aussi ci lu jëm ci déficit d'enseignants yi itam table banc yi dinañ ci indi yaatal li ci bile plateau lenen lu ñeel yéenekaay yi les échos dafa daal di ñëw ak ñun ci scandale à la mairie de Wakhina Nimzat ben agent bo xamantene rek dañ ko daal di loxo ndax lañ koy topé rek moy vol recette jëm ci faux diplôme euh, TFAL euh, Fall secrétaire général bu collectif euh, agents municipaux yi euh lolé lañu ñu daal di jëm ci walum taxe bo xamante rek dañ ko daal di recouvrer loolee la yéenekaay bi di mu nek le secrétaire municipal renonce aux poursuites jëm ci li nga xamante rek le l'office du bac maintient sa plainte l'olé lañu ñu di si les échos yéenekaay ñu taxaw ci Walf Quotidien mom dafa daal di ñëw ñun ci cumul de fonction ARTP silence à on, viole la loi L'olé la de xamlé batay rek euh, ci Quotidien Habib Sy candidat à l'élection présidentielle euh, la de xamlé rek moi président de la République euh, Macky ne voulait pas en finir avec le pouvoir L'olé la daldi di ñu dem ci l'observateur mu ñëw ak ñun ci justice lenen lo xamantene rek ci mbirum oustaz Omar Sal. Gina biñ ko tegee won loxo sax tienen daldi xamlé ci xibaar rek retiré

détails yi daal dinañ ko fësal ci euh, direct news euh, ñu jaar ci source a mu ñëw ak ñun ci entretien exclusif avec euh, le euh, latéral gauche des Lions du Sénégal euh, mu que euh, les percées d'Ismaïla Jacob sous lolé le yéenekaay bi d'Aldi, Fossel. libération mu grève de 48 heures pour boo xamante ne rek ñii di vers des perturbations dans les tribunaux Lolé le yéenekaay bi d'Aldi, di fësal waaye ba ci libération dafa daal di ñëw ak ñun ci série de retour de parquet nit dof Colline Faye Sat Sadia Elhadji Baro euh, loolee la ñu daal di xamal nit dof le parquet dafa daal di demande le mandat de dépôt au doyen des juges l'audition daal dinañ koy programmer tey jii ci alxamis bi dinañ leen toppal yooyu la xibaar ci suñu yeneen i jotaay ngir xool mbir moomu fan lay mujjee Nous euh, jëm ci le Nous dafa di temps ñun ci euh, ci li euh, présidentiel ñu wax ci PDS lolé lañ Karim l'obligation d'un coup d'éclat électoral depuis da Doha le candidat du PDS prépare activement son retour mu melni sax doomu maître Abdoulaye Wade jamono ji nañ xamal ci kay mu son retour fi Sénégal mu nekk rek données les moyens de réussir un coup KO euh, ci prochain présidentiel lolé loolee la ñu daal di fësal ñu jall ci kay tagat yaram mi record dafa daal di ñëwal ñun ci mondial U17 euh, France Sénégal zéro bi partout lolé lañu ñu di xamal équipe nationale ñu ndaw ñi nak daal di nañ leen éliminer demb euh, ci huitième de finale yi mujj ñoo dem si li nga xamante rek moy quart de finale batay record daal di taxaw ak ñun ci lutte après sa défaite euh, sur les options jamono ji dal dafa daal di teg ay bëtam ci Boy la daldi di xamle mu dem ci stade yéenikaay mu daal di taxaw ak ñun ci Ismaïla Jacobs hmm. euh, devenu indomptable l'olé la ñu daal di gis nañ aussi euh, ki nga xamantene rek moy Mendy mom dafa daal clos le débat avant la CAN il n'a pas de doute sur Edouard troisième défaite suite quatre matchs sans victoire mu melni sax Brésil jamono ji ci kawo la daal di nekk li moo fi gënoon a fës mbokk yi jëm ci yéenekaay yi di leen jaajëfal euh, daal de laataa ñu dugg ci ci ci li nga xamante ne rek moo jëm ci waxtaan bi mm-hmm. euh, daanaka li moom gënoon a fës tey ci yéenekaay lañ ci gën a jàpp rek euh, di mm-hmm. défaite bu équipe national bu Sénégal dëgg la Ramata dëgg la Amina mm-hmm. défaite bi nga